taxaw di wax que ne le droit ne dit pas son nom parce que le droit pas dit. Mm, mm. parce que dafa am loo xamante lu nekkul lu ñu teg ci wàllu woowu donc toutes ces choses là boo ko xoolee bu baax dafa composé li nga xam moo nekk cette cette justice là aujourd'hui mm-hmm. léegi moo tax ñun ñëpp war a toogaat di di bàyyiwaat xel ne lan mooy justice bi ñu am ak ñan ñooy justice bi. yi nga xam ne moo indi à chaque fois muy am ay doute ci kanamu askan bi aussi. pour dëggal sa wax bi nag euh, juste après décision yooyu noonu gis nañu ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllum justice. Mm. ñu daal di bokk bind bataaxal daal di ko jox ñi nga xam ne ñoom ñooy askan bi mhm. euh, xamal askan bi nii lépp li nga xam ne moom mooy wàllum affaire contumace nii ak nii ak la demee waaye bu fekkee de l'autre côté maanaam ñi nga xam ne ñoom ñu nekk ci nguur ñi ngi joxee ci benn ñi version mhm. loolu dina leen xaaw a jaaxal mhm. euh, tey ji nag dañu ñëwaat tuuti ci li nga xam ne mooy wàllum sécurité parce que gis nañu tey ji ni voilà kaaraange pour une première fois ñu gis euh, ay xaj yi nga xam ne daanaka dañ leen former pour mën xool daanaka dañ ko doon gis ci ay. lu yees lay doon. lu yees lay doon. voilà xam naa bi nga ñëwee dawoo. <laughs> dawoo ndax yow tàmm nga ko. <laughs> dama dama dama xaaw a reculer tuuti ndax bi ma gisee xaj yi <laughs> mais fi ma amee euh, euh, assurance mooy bi ma gisee waa ji euh, bum bu mu yor matul un mètre ma xam ni ñii ay xaj la ñi xam ne dañ leen dressé waaye nag luy sama problème mooy. est-ce que euh, bés yi nañ tey xaj yi nga xam ne xëy na ñun dañoo jàpp ne dañ leen euh, dañ leen dressé pour wàllum euh, cinébar bu ñu leen gisee tey ji nii ci terrain bi nga xam ne dëgg moo fa war a feeñ ci li nga xam ne moom mooy accès bi dañ ko interdit ci bépp nit bi nga xam ne bokkoo ci taskati xibaar yi wala bokkoo ci ñi nga xam ne ñoom ñooy tàkk der yi wala na duggoo directement ci li nga xam ne moom mooy cour cour de cour suprême bi est-ce que du du du la xaaw a déranger tuuti bu fekkee ñemewloo xel waaw xam nga moom lenn ñàkk a sekk nañ koy doxale maanaam defe naa ne ñoom ils sont dans le rôle de prévention mais aussi d'assurer la sécurité parce que bésu tey du bés gu ndaw bu ñu njortoon ni bés lu ne mën naa xew mhm. faaw nu teel a jël les devant parce que amoon na yi fi xewoon mhm. xaj nag moom buñ ko dressé ci benn anam am na lu muy wër loolu ñoom ñoo ko maîtriser waaw yow boo deful li la xaj bi ni màtte mbaa la toppe da ci li nga war a nekk defe naa ñun on a la chance aujourd'hui en tant que taskati xibaar ñoo couvrir ñu aménager ñu lu ñu jaa lu ñu jaaxal ke mooy naaj bi moom meewul dara ñu ngi muñoon ndiku par rapport ak naaj waaye loolu moom defe naa moom jarut a def débat li am solo daal mooy eh, li ñu fi dajale tey mu nar a xewee ci anam yi ñuy xaar ni daal vraiment dana dëppoo ak xëy na attente askan bi que le droit soit di parce que tout le débat aujourd'hui depuis quelques années au Sénégal ci par rapport ak justice mooy droit bi tantôt ñii gisee nañ ko nii waxee que ni noonu la leen arrangé déjà yéen ñii ñëpp fekkee nañ fi ñaataatu yàlla troisième mandat troisième mandat mm-hmm. am na droit amul droit mm-hmm. nul naa le droit de faire waxee nañ ko ni waxee ñu ko ni on parle pas de la durée on parle pas on parle de mandat ñi ne noonu du bi durée gi am solo débat sur débat guddeeg bëccëg suba ngoon on ne cesse maanaam di appesantiru ci boobu la question de droit donc li am solo mooy vraiment xam naa euh, dinañ muñ rek ndax ñu ngi ci naaj bi di muñ lii ci biir ñu ngi xaaraan di ba xam fan la àtte na war waaye internet yi daal nañ jël seen maanaam patient bu dee côté sécurité moom ñàkk a gérer jël nañ seen matuwaay waaye ñun on va pas manquer à chaque fois revenir su fekkee am na dara lu fi yëngu mais fàttali sànq nag. bi nii ñëw xaw ma ndax seetlu ngeen ko parce que yéen ñu fi jiitu gis nañ mbooloo woo xamante ni takk der yi ñu leen di disperser di leen dàq ndax it xam nga tey bu weesoo li fi am ci cour suprême il y a le LACOS maanaam il y aussi tamit la coalition Yewwi Askan Wi ñoom tam ci seen wàll danoo woote mobilisation en gis de soutien à Ousmane Sonko waaye ndax mobilisation boobu tamit dina am déjà ñun gis nañ ñi fi ñëwoon ci ay sympathisants moo xam ay militants pour soutenir situation wu seen leader dañ leen fi jëlee dañ leen tasaare donc fii ndem looloo fi xew waxuma la nag beneen bërëb goo xamante ni mbooloo nar na fa daje te li gën a matati tey am maa dina am lu jar a bàyyi xel ci lii xew fii waaye tamit nag par rapport à ces rassemblements waaye gis nañ dëkk bi quadrillage bi nga xamante ni am na par rapport ak yooyu la takk der ci dispositif euh, sécuritaire boobu sax laa bëggoon euh, ñëw parce que euh, gis nañu ni artère maanaam fépp fi nga xam ne position la bi nga xam ne c'est stratégique ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ñooy seetlu wàllum kaaraange ñu ngi ñu ngi taxaw foofu maanaam mun nañ wax ni lim bu takku la coro daanaka romb nañu ñi nga xam ne ñoom ñooy policiers yi ak gendarme yi ci kaw yi te gis nañ tam ñi nga xam ne dañu bëggoon ñëw pour mun Euh, participer ci lii nga xam ne moom mooy euh, soit manifestation yi wala indi seen soutien ki nga xam ne moom mooy euh, Ousmane Sonko fi nga xam ne moom mooy Cour suprême daanaka ak même bu fekkee seen nañu Cour suprême groupe bi ñi nga xam ne ñooy tàkk der yi dañ leen di tas wala dañ leen di wax ñu dellu fi nga jóge waa Malang fi nga xamante ne nag moom moo di Cour suprême bi ñu nekk lu si mel ni université lu si xamante ne rek euh, fii euh, la ñuy yegg si gisuñu euh, benn rassemblement parce que ñi di takk der yi muy gendarmerie muy police ñoom ñëpp jël nañ seen matukaay te li ni mel bu mu juumul démb si guddi la parce que démb ci bi may wàcc maa ngi gis ay auto yoo xamante ne ñu ngi génn Euh, rond vingt 26 ba fii nii euh, mënoo romb te gisoo benn auto gendarmerie wala li nga xamante ne rek moom moo di auto police euh, ñu daal di taxaw ci ay point stratégiques ngir xam naa pare à toute éventualité ci li nga xamante ne. y a une petite urgence là. allez-y. di am. Mm-hmm. Juan séntu woon nañ ko mu ñëw mais mujjul ñëw. waaye waxtu wi am na lu mu amal ci page Twitter am mu di information de taille Absatou Anne war ñu ko dégtal lu daal ci baaxel pour yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy suivre. waaw euh, ndax euh, Yaa Moussa boo fàttalikoo en ce moment Euh, ñii di cour de justice bu CEDEAO aussi dañu waroon prononcé wu déjà ci dissolution au parti Pastef mhm. waaye itam prononcé wu ci euh, Ousmane ko génnee gi ñu ko génnee ci list électorale yi mhm. euh, loolu moo tax kii di avocat wam bi di Juan Branco avocat wu français mi nga xamante ne tey ji waroon na teew Sénégal mais mu jëntal gi mu jul ñëw mu daal di posté ci compte Twitter am ne la cour de justice de la CEDEAO donne blanc-seing à Macky Sall pour détruire son opposant ay kàddoom la moom Juan Branco Cour de justice de la CEDEAO approuve la dissolution du principal parti d'opposition. Elle ne se prononce pas sur la radiation. Elle s'érige en gardienne du pouvoir sur une mer de cadavres di ay kàddu yoo xamante ne kàddu yu Juan Branco la mu ñu mën ci déggee ne dafa mel ni euh, CEDEAO tey jii dafa tranché en faveur mën nañu wax ne de l'État du Sénégal ndax euh, lii di euh, dissolution parti bi moom dafa mel ni CEDEAO approuvé na ko waaye itam ñi nga xamante bi mooy euh, wàllum euh, Ousmane Sonko décision bi nga xamante ni jël nañ ko pour génnee ko ci liste électorale yi nanguwu see àddu. waaw ab sa kooku di suñu naataangoo nekk euh, ci. Seneweb Absa ñu ngi doon wax ni euh, tey ji ni dafay day dafa nekk euh, jour bi nga xam ne bës bi am solo trop ci euh, Ousmane Sonko ci ñaari fànn yi maanaam ci beneen décision bi mooy cour de justice bu CEDEAO ak beneen bi cour suprême daanaka yaa ngi ñuy jox li nga xam ne moo jot a génn si nga xam ne mooy cour suprême voilà ñu ngi ñu ñu ñu ñu xoolaat information bu baax par rapport ak li nga xam ne parce que Juan Branco li nga xam ne moom la bind moom lañ gis na na nga xoolaat bu baax a baax après ñu daal di la waaw parce que fu ñu nekk nii pour mun euh, xool euh, li nga xam ne moom mooy euh, suñu téléphone yi daanaka ci naaj lañ nekk kii bi neexul noonu ñu gëstuwaat bu baax a baax xool bu baax a baax li nga xam ne moom lañ bind bala ñu leen di jox information de taille pour wax leen nii. li ñu xamante ni bii moom la kii di avocat wu Ousmane Sonko bii di Juan Branco li mu daal dee posté ci compte décision réelle de euh, la Cour de justice CEDEAO muy décision officielle autant pour moi waaye li ñu mën a jàpp ci li nga xamante ne bii moom la Juan Branco bind dafa mel ni ci wàllum dissolution parti pas parti bii di PASTEF euh, CEDEAO dafa daal di euh, jox dëgg ñiiri di état bu Sénégal. waa ci euh, affaire Juan Branco la toujours parce que gis nañu ni ginnaaw bu ñu bu mu ñëw fi nga xam ne moom mooy Sénégal ba daal di bind bataaxal bi posté ko fi nga xam ne moom mooy Twitter ex ñu ñëwaat na. di wax ni li nga xam ne moom mooy demand bi mu defoon fi nga xam ne moom mooy ambassade euh, Sénégal bi nekk Paris voilà ñu bàyyi la nga euh, daal di jël boobu information ndax gis nañu Juan Branco fi mu doon waxee ni euh, bi mu waxee sénégalais ni bëgg na ñëw en tout cas fi nga xam ne moom mooy Sénégal pour mun a teew li nga xam ne moom mooy ate bi ñuy atte Ousmane Sonko fii ci cour suprême bi waaye nag démb jotaat nañ beneen bataaxal bu ñuy xamal ni moom nee na état du Sénégal ginnaaw bu ambassade bi nekk foofu ginnaaw ambassade bi nekk fële buñ mayee pour mu mën a ñëw fi ni état du Sénégal daf ko bañal euh, boobu décision ndax euh, ñëw na ci euh, noo mënee noo gisee commune mais démb mi ngi woon aéroport def na vidéo sax ne mi ngi waajal embarcation bi mhm. mais à notre grande surprise finalement mel na ni mu jul ñëw ndax da nga ko mujj teel a par rapport ak conséquences yi ñëwam na a parce que il a reçu une convocation maanaam tey jii nii du juge pour mu ñëw layal moom tamit client mais malheureusement mujjul ñëw. voilà voilà voilà Babacar Kébé sur ce par rapport au cas de Juan Branco. donc il a dit que il a dit que il a dit bi mu am pour dire pour revenir ci tweet bi peut-être que lui il a en amont. avant que ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk nit ñi di ko am mais li muy wax mooy que ni la cour de justice de CD la cour la CEDEAO donne blanc-seing mhm. donne blanc-seing mhm. à Macky Sall pour détruire un opposant mhm. mu ne elle approuve la dissolution du principal parti d'opposant elle ne se prononce pas sur la radiation elle euh, s'érige en gardienne du pouvoir sur une mer de cadavre mhm. moom appréciation boppam la dernière phrase bi mu mujjee lire noonu mais boo xoolee yeneen mu njëkk a wax très bien mais yeneen mu wax mooy kan dafa mel ni donc li avocat Ousmane Sonko doon clamé ci euh, de justice bu CEDEAO mhm. dafa mel ni li état du Sénégal décidé dafa mel ni loolu la mais xam nga décision de justice dafa am lu koy composé mhm. dafa am loo xam ne moo koy expliqué te loolu CEDEAO mi ko joxe moo koy génne donc y a à la base y a des yoo xam ne ñoom ñoo ci fondé wu te ñoom ñoo koy expliqué aussi. maanaam précaution ngay laaj pour ñu bañ a dugg ci li nga xam ne merci très bien exactement pour bañ a dugg ci ay parce que xam nga mbir yi moom bu tollee fu ne ku ne dafay génn rek pour di manipuler parfois ñenn ñi tam dinañuy wax parce que seen aqula tàngalaay waxee mais ñenn ñi boo naree interpréter rek bu nga surax ci seen camp c'est-à-dire piège bi a une loolu dafa di euh, information de taille bi nga xam ne war nañ ci baay xel Coro euh, xanaa ñu jox la nga sànni kaddu